Touba ak li ko wër moom góor jigéen bu ñëw bëgg fay installé si bay ba mu jënd ba melam feneen ba defar ko ba mu mel na muy bëgg mu ñëw Touba duñ xaar yàlla di ko àtte wala mu wala mu ko rey dañu reyaale déedéet ndax ku dem ci hôpitaux yi da gis ne danañ xool nit ne kii li nekk ci tànkam bi walla li nekk ci loxoom yi suñu dëggut loxo bi wala tànk bi mën naa wàll yaram mi faat ko lu tax ñu nangu loolu dagg tànk wala dagg loxo wala dagg ay baram te nanguwuñoo seet ci biir nit ñi koy def lu yàlla tere te mën naa teg nit ñi fitna ñu da ko fi bàyyi di ko def na dara kilifa diine lim ci am wàll mooy euh, kuy défendre góor jigéen mu bañ koo rasawaaraati bu ñëwatee këram mu bañ koo gis te bu demee ñu tibb tànki oto ba mu ba mu duggoon sa tuuri ko ca àll ba fu kenn nekkul ñaareel ba it kuñ fi defati ministre boo xam ne day wax lu jëm ci défendre góor jigéen wala yi yi ma tudd yépp tamit yàq pas-pas yàq nit ñoom ñëpp maa maase taxaw ne kooku nañ ko folli bu fi nekk ministre du fi nekk député du fi nekk du fi nekk du fi nekk am na gaañ loolu seen warugar la buñ ko defee ak buñ ko def ak itam kuñ ne góor jigéen laaj ña koy défendre ñëpp ak yi ñuy jëfandikoo yëpp lu ñu leen te mën a jox ak nu mën a tudd ñu bañ koo jël tey digle na bañ koo jël ndax bokk yi Sëriñ Tuubaa moo bind ne wajtanibu xultata haulaai li annaha min aqbahi al ashyaa wa man yusharikuhum huna fi izzihim yakun koo xam ne jëflante naa kuy def lu yàlla tere ba ne fàng fàngaaral te rey waroon ca te reyaguñ ko sëñ bi ku jëflanteeg moom mu jox la la sama mbokkum Saloum Saloum waxoon dafa am ku fi nekkoon président de la république mu aay ci moom lool te jamono yàgg ya jamono Senghor bu ñuy wax ci Senghor moo ciy gën a xumbale kàddu moo leen di ëpp ay lay yuy tax ñu bañ Senghor Senghor woolu ko jox ko oto bu muy war ak bu muy def ay bagaasam ak ceeb bu bareek xaalis mu def ci poosam bis ñuy wax ci saa bu ñuy waxate ci Senghor mu jóg dem wala mu noppi ñu ne ko lu tax doo wax mu ne fa ñu ma leel fa ñu ma leel kat mënatuma wax bokk yi leel boobu ñuy leel leelaate mën nga caa suur léegi lekk ko suur gëmmentu nelaw yeewu mu rees yàlla di la xaare nag bu ëllëgee buy sëdd waaja fawuñ sëddale la ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon tere woon ijhaad moo xam tëb bii la wala taqalidi bu mu ci man doon lislaam da koo tere yonent bi moo ne woon wut ay soxna te si yéene jur ay doom yu bari te def leen ay jullit ndax bu ëllëgee damay puukarewu ci kaw ñeneen ñi ca des ñi nga xam ne góor ñi dañoo noon duñ am soxna jigéen ñi tànn duñu am jëkkër ba dee ñooñu dañoo war di wàññiku li jaadu mooy wàññiku bu fekkee góor du am soxna jigéen du am boroom kër dañoo war di wàññiku moo tax booy dégg Sénégal ñu naan quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañu 1960 ba léegi loolu ay nax mënu ko weesu 1960 ba léegi bari na ñoo xam ne ñi ngi taxaw di wax te booba gënee guñu àdduna te am na ci doom xanaa luñ néew néew mën na 96 pour cent ndax dolli ko ne ci moom. ñeneen ñi nga xam ne duñ amee soxna ak i doom tey de lu tax ñu war a nekk 5 pour cent ba léegi ay nax moo ko moo ko moo nekk ci nekk ci biti soo waxee nag lu ñuy tudde ay ONG ONG ña say nekk koo ci ne doo ab jullit ay bëgg a doon mburu yi sarax te dañuy bëgg bu ñu faatoo ñu yóbbu leen denc leen Touba wala Tivaouane wala Yoff di woote naan góor jigéen ñi amuñu fi benn jafe ci réew mi ils sont à l'aise ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international